naan da ngay euh, protéger VIP bi comme ni nga waxee mhm. le cadre kooku noonu dooloon bal si tànk Mohamed kooku bu ko dóoree ba en tant yow garde corps mhm. def nga li nga war a def nee bu fekkee ñoo nga taxaw si terrain bi mhm. gars du la ñemeetee parce que loolu attitude ak comportement bu loolu waaw bu loolu dalee si kii bi yéen naka ngeen di mm-hmm. man lu raw loolu dal na ma lu raw loolu kii bal lañ ko dóor man tundurwaa dafa jaar sama tànk simle yi ngay gis nii Ford yu mag yi 150 yi dafa jaar sama tànk Saint-Louis avec Ahmed Fall Braya mais après na la mujjee heureusement gis moo tax ma ne nit ki da ngay nekk professionnel bi may yéeg oto bi di daw parce que ñu ngi doon bëgganteeg cortège Mansour Faye ni ma wàccee oto bi dégagé tunduraay bi dafa jékki saa rek chauffeur bi def coup de volant mais bi pneu bi di ñëw dama teg sama tànk la fa fekk mais dama bàyyi ni pneu bi di jaar ma lem ak pneu bi noonu bërëngu ci suuf jug bu ma jugee dama doxat mais VIP bi gis na ko mais après lan la ma wax waxuma dara fajuma joxuma xaalis yóbbuma hôpital lijjantiwuma maa toog deux jours yoo xam ne dañ doon kinési sama tànk troisième jour bi moo forcé ko dem liggéeyi ci. ok Ahmed Fall Brahima mu may dégg deewagul <laughs> non looloo fi nekk donc ñoom ki ñu dóor bal si tànk. kenn nee naa la Mouhamed woo naa ko seet sama coach la sama coach la et tout mais dama ne la li tax ñu dóor ko bal bi si tànk. lan pour pourquoi loolu la nit ñi war a lijjanti quoi pour quoi ñu dóor ko bal ci tànk booy amuñu droit yore arme booy amuñu droit yor sol accoutrement bu nduroog police wala bu nduroog gendarmerie tey la booy gën a nduroog ay policier wala ay gendarme booy dañuy yor ba yor goon ñu teg ko fan sans autorisation sans permis sans rien du tout teguñu fenn li ñuy def gàddu koor yi teguñu ko fenn parce que ñi leen di former ñoo leen former formation bu bon gis nga produit ci béya baa la boo defaree mu baax rek day baax parce que tey ji gendarme bi dem retraite deful protection rapprochée xalaatu ko liggéeyu ko defu ko dara mission la dem ONU ànd ak observateur bi benn jour yéeg ci oto bi yóbbu ko benn point A indiwaat ko point B ñëw ne garde corps la libérer gendarmerie parce que c'est pas un gendarme de carrière créer école am jël booy di leen former pour yow dina former ay garde ay militaire lay former booy dañuy génn yaakaar ne ay militaire lañ gendarme bi taxaw ñu wax ak moom gëdd ko wéeru ko mais loolu noonu saa yi abus d'autorité la gendarme bu la toppee da ngay tëddi bàyyi leen caaxaan yi booy. procès Ousmane Sonko tey jii lu ngeen yow nga jël sa bakkan. teg ko si VIP bi avant moo laal VIP bi laal la est ce que yéen dina leen fay lu ko jar selon loolu noonu. man ñaata VIP laa am ñaata VIP laa mos a liggéeyal Sénégal. seen salaire si ñaata lay toll. non xaalis la man faaya man pour te dire le minimum man boo may génnee journée cinquante cinq mille nga may fay ku ko mënul doo ànd ak man man je travaille avec un gars il John Vicat ku ko xamul dégg na ko ci àdduna c'est un américain Sénégal fii am naa fi ñetti autorité yu may nekkal nii nii nii nii nii nii yaa ngi comprendre ba pare maa ngi ci administration di liggéey donc nit ki moo tax ma ne la lépp professionnalisme la parce que déjà man su tey jii sénégalais bi ñëw ma ne la heure cinquante cinq mille nga may fay boo calculer vingt quatre heures ñaata la ci xaalis nooy def da dem ne bàyyi ma xooli leneen looloo indi problème mu nervi yi nga dem jël benn booy fay ko dix mille dem journée ak yow. loo ko wax mu def ko te ki nga jël xamul li muy liggéey lan la faaye boo ko naree fay chaque heure cinquante cinq mille francs <laughs> nga nar a def ak moom un mois saa yi sa compte bi dootu ko fekkee mais base bi loolu lay doon boo ma ñemee ñu liggéey boo ma ñemewul ñu xool nu ñu teg leneen nga dem ma dem da ngay gis gars yi da ngay ñëw maye la da may fay journée cent mille benn boo jógee fee ne la fay ma journée cinq mille. Ah. journée cent mille journée cinq mille. man mii sax dama yaakaaroon ne net bi journée 5000 la ñu fay wala wala 10 000. booy yi 10 000 ak 5000 ak 15000 ak. booy 3000 sax boo ko fayee nit mu ñëw liggéeyal la léegi Sénégal daa neex de. <laughs> procès Ousmane Sonko le 16 mai. waaw kon jëm ci mook Adji Sarr. Mhm. le 8 mai jëm ci ko ak moom ki nga xam ne daanaka moo di euh, Mame Mbaye Niang mhm. euh, toujours jëm ci wàllum itinéraire wala toujours tey jii nii euh, muy doon li nga xam ne daanaka toujours problème nag nga gisee buñ ko defee daanaka procès noonu dinañ ci mën a jàll pour mën a avancer ci léegi procès juge ko magistrat yi je sais pas quoi quoi quoi préfet préfet. Hmm. moo lay wax fi ngay jaar. Hmm. Ousmane Sonko ñi ko wër duñu ay ngaaka am na ay avocat xam nañ bu baax luy yoon juriste yaa ngi ci wetam bu fekkente ne sax garde yi seen liggéey defuñu ko normal mais juriste yaa ngi ci wetam avocat yaa ngi ci wetam. Hmm. bu fekkente ne ñoom dañu jël seen itinéraire proposer ko si ce qu'il doit faire en fait dañ ko war a proposer. bu ñu proposé préfet bu d'accord mu ne leen waaw jaar leen fii bu dee préfet d'accord mu ne leen non non fii ngeen di jaar ñoom ñu xool nag léegi après dañuy def suppu kanja maanaam mi dañuy dóor lacrymogène booy ñëw kërti kërti ak ñoom genre saañante xeer yi journaliste yi jaar gauche jaar ah. droite comme sama copain keroog tuddee doon gars yi nangu kóola mooy <laughs> yaa ngi comprendre ah. affaire yi demee noonu bu dee suppu kanja boobu la ñu bëgg pour retarder ah. bu ñu yegg ñu yegg tardivement gars yi defaat renvoi ñun ñooy dee ñun sénégalais ñun ñi nga xam ne bu ñu xëyul liggéey suñu njaboot yi du ñu lekk gars yi nañ bàyyi xel que ni Sénégal nekk nekkuñu euh, États-Unis nekkuñu Libye ñun geeruñu gàddu koor yi tamit ñu def seen xel ñiy ànd ak euh, client yi nañ def seen xel nii bakkenu client lañ leen jox bu jaree ñoom ñu joxe seen bakken ñu joxe seen bakken bu dee fi muy jaar yaa di neex parce que sooy xool le président Ousmane Sonko ba muy waxal loolu man la si njëkkoon a waxal sax vraiment euh, di bépp internet bi nga xam ne mi ñuy bàyyi xel au niveau fi nga xam ne moo di ci Feeling woon rek dafa ne du jaar ci wàllum corniche bi parce que dañ ko signalé ne ko dafa am ay neex bu ñu demee ba Ousmane Sonko wax leen loolu est-ce que jàppaloo ne euh, ñu mën a accepter itinéraire bi mu wax leen fa UCAD yegg na si tunnelu Fass bi est-ce que yéen bu yegsee si tunnel boobu moom leer na ko leer yàlla Bamba Fall la ngi foofu. loolu c'est automatique quoi ñun ñëpp maire yi jaay gerte caaw sax xam nañ ko Bamba day dem jël ay nit ñu ne leen bàyyi taxawal leen ma fii bu ñu laal mairie bi wala defal leen ma lii defal leen ma lee ñi ñàkk fayda nag dem di for ay xeer di ko xaañanteeg yooyu ñoom ñoom la concerné mais tey jii nii euh, Ousmane Sonko du ngaaka xam na ne noonu lay demee dina mbëkkanteeg. ñoo xamante ne Bamba Fall lañ nekkal wala wërëb beneen genre opposant lañ nekk boo xam ne yoonam la ñu xaw a defante nii ñoom seen biir. you know mm-hmm, mm-hmm. léegi loolu noonu moom bu ko calculer am na droit loolu mënoo ko sax ko. mais ñëpp ñu ngoon ci tunnel boobu noonu te xam nañ nga xam ne daanaka moo xew ci tunnel te day am dëgg euh, toujours si de l'ordre. dëgg la loolu c'est vrai. Ah. te ba pare li gën a pire mooy da ngay seetlu ba le passé. Ah. ñi ñuy woowee ñi <laughs> les nervis yi. Mhm. dañoo taxaw nii. Mhm. police taxaw nii. lu la gendarmerie taxaw ci beneen côté bi. dàqu ñu ñii. teg aussi at boobu la ñuy bañ. nervis yi dañuy yor arme arme dañ koy tere pour civil di ko yor. nervis yi dañuy yor arme di tirer comme policiers yi nga xam dañuy tirer. état di soxla. non di dóor nii quoi. ah bon. ay nervi la. man nervi tànc ma fi. non ay nervi la mooy mooy li nga wax nervi décortiquer le mot nervi qu'est-ce que ça fi en fait c'est que nervi du dara de xam nga mot bi lan lay ñu genre da nga may fay man ne ma bàyyi du ngeen génn bunt bi est-ce que yaa fay ma pour ne ma gars yi bu ñu génn buntu saal bi léegi genre liggéey boobu ngay def maanaam gain the morning boobu noonu maanaam danga may fay man xaalis bi pour ma defal la lii. liggéey boobu moom la gars yi jàppee nervi te loolu noonu ñi koy liggéey dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg c'est des contracteurs maanaam c'est des mercenaires d'origine typiquement formés ñoom ñooy def ay chassaalom yi ngay dégg rey nit te dootoo gis trace def ay détails ñooñu ñoo koy liggéey mais Sénégal da ngay ñëw ñu dajale dix ponkal fay leen dix mille dix mille wala cinq mi cinq mille ne leen oto Ousmane Sonko bu mu jaar fi mais mosoo dégg ay nit fay nañ leen ne leen oto Macky Sall bu jaar fi mos nga ko gis parce que parce que lan. la bi la la lan la. armée bi armée bi moom la si gars yi di sóoraale léegi ku bëggoon rey président bu ñu la jàppee lan la lay jàppee. bon je sais mais loolu liggéey la mais Ousmane Sonko civil la président suñu président de la République civil la sauf que actuellement dafa nekk le président l'homme le plus important de cette nation. mais tey jii nii am na ñoo xam ne boo leen fayoon xaalis bu weex tàll cortège bu Macky bii nii barki yàlla bu got nee si rajo bi corniche la ñuy jaar. Macky du jaar corniche parce que ñooñu loolu seen liggéey te ñu ngi ci àdduna bi. taxawaayu takk der yi ak ñi nga xam ne daanaka ñoo di ay neex fi ñu jàppale leen ay garde corps euh, ci jëm ci wàllum press bi euh, nag nga gisee euh, ni waa presse bi d'abord man presse bi yéen dama leen yërëm. bi ngeen di def su émeute amee dafa métti. da ngay gis ñaata live ñooy am. gars ay kóol la ñu yor yor kaam yi yor trépied yor micro yi. nekk ci biir foule bi mbëkkanteeg policiers yi mbëkkanteeg civil yi lacrymogènes yi di naaw parfois xeer dal leen am na si seen benn collègue boo xamante ne bii oto moo ko mbëkk defe naa oto. yaasin yu non fan la mujjee. fenn. <laughs> donc yéen da ngeen di bàyyi seen xel man du ma leen jàngal seen métier. Mm-hmm. mais j'ai déjà vécu l'expérience avec les Tchadiens au niveau du Tchad. dafa am ñoo xam ne c'est des journalistes d'enquête. si yéen a ngi comprendre am ñoo xamante ne bii c'est des journalistes ils on les a formés juste pour des émeutes maanaam ñooñu dañuy dem jëli ci information yi fraîchement indi ko parce que loolu la seen métier journalisme ci loolu la spécialisé wu. donc yéen bu ngeen di dem tamit li tax policiers yi parfois ñu leen di dóor lacrymogène wala di leen eh duggee leen fii parce que ñoom leer na leen leer yàlla ñi ñii du ñu ay journaliste d'émeute du ñu ay journaliste d'enquête est que ngeen comprendre bii ay tubaab. waaw dàq ñu leen seetlu leen. waaw man jàngootal naa ci loolu. ñoom fi ñu doon nekk sax bu ngeen xoolee yéen du ngeen fa nekk. parce que ay journalistes d'enquête lañ ak ay journalistes. de mais loolu est du complexe man complexe laa ko jàppee. non du complexe parce que ñooñu noonu seen këyit ça a été déjà vérifié avant. parce que ñun xamante bu baax moo tax mais yéen mën naa leen génneel seen ay photos yu ngeen nekkee ci ay émeute xamu leen. mais ñoom vous avez le droit. Mhm. kenn waxul amu leen droit bi. dëgg la moytu que bu ñu leen gaañee après du mujjee fenn leen seen collègue bi dafa métti loolu c'est très dur mais après nan la zéro yaay jël sa xaalis ci faju di mag yi du la seet si de. Mhm. barki yàlla du la seet si Macky du la seet si Sonko ngi nii ay garde corps bi ñu bi ñu duggee hôpital gisoo leen ko hôpital parce que moom mu ngi woon ci côté ba ndax du doon waaye dee. Mhm. limo bi ak ak momo bi ñu nekkee prison gisoo leen gisu gisuñu ko déggante nañ peut-être wala leneen ak leneen mais gisu leen. bi ñu génnee lañu mujjee ñëw mu leen di gàttandoo ci ay escalier yoom ba dóor may jéeréem boobu noonu gis nga nit ki garde corps yi leen la ñu war a bàyyi man professionnel yi laay waxal en fait te professionnel yi ñetti école ñoo fi valable si 5500 écoles yi am Sénégal ñett ci valable deux yi ay amateurs lañ moo tax boo boole wuñ leen ci niveau international premier degré moo tax ñu naan trois mais cinq la deux yi ay amateurs lañ parce que benn bi école mère la beneen bi école secondaire la yeneen trois yi des ñoom ñoo am yenn attitude yi agrément bi et autres donc léegi bu ñu leen formé normalement booy mun nañ développer seen liggéey normalement mais bu ñu leen formé normalement mënuñu def seen liggéey normalement te journalistes yi encore une fois éviter leen ba da leen bàyyi seen xel en fait ci seen bopp you know ngeen bàyyi seen xel ci seen bopp parce que ngeen xam ne fii bu ñu fi yegsee bu ñu gars yi nee hey ut leen kër gi fu mu gën a xaw a seddee ngeen def nii gars yi tourné ngeen dawaat ñoom mais bu ngeen xawee insister rek gars yi ñoom paf dañuy liggéey non donc yéen ngeen moytu loolu. mais ñu ngi rafetlu tamit liggéey bi di leen masawu ci affaire yi lacrymogène neexu la. kàddu gi mujj lay tàggoo. waa li may tàggoo mooy damay remercier waa Ema Fitness en fait d'abord parce que ànd bi yàggul trop mais nice na you know moom laa njëkk remercier beneen bi ci bi ci topp mooy maa ngi bëggee Sénégal yëpp di bëggee tamit garde corps yëpp ak nervi maa ngi leen di bégee non sûr non ay nervi lañu Sénégal amul garde corps man maa la ko wax <laughs> ay nervi fi nekk je te pare euh, di leen di leen di leen bégee yéen si déplacement bi ngeen def et tout si trop fexe ngeen ba loxati ma beneen bi mooy maa ngi genre euh, boîte bi SS protection mu ngi fi. moo ngi fi moo ngi fi gaa yaa ngi si gaa yaa ngi ci liggéey bi bu baax sax. gaa ngi ci job bi bu baax di leen wax que ne ñoo ngi fi dañoo nekkoon suñu ruq jàngi ji waat nañ tuuti demaat nañ utaat tuuti xam-xam ci yenn dëkk yi ñu bisiwaat nañ ci biir dëkk bi ñu ngi ci waat ci town ñoo ngi fi carrément comme ku ci mel ni chef Blow ku ci mel ni chef Maam Doudou chef Talla chef Ñaay yaa ngi dégg gars yëpp ñoo ngi fi ñu ngi liggéey si ruq bi yëfu nervi nag lañuy bañ moo tax ñu toog di seetaan parce que bëgguñu ñu classé ñu fi ñu classé ñooñu looloo waral suñu toog ne tekk bi mais ñu ngi fi te ñu ngi liggéey ak ay international en fait. waaw message d'alerte euh, balaa ma laa bàyyi rek ñu jëm ci procès 16 euh, euh, mai bi. Mhm. Adji Sarr Ousmane Sonko. wala le 8 mai bi jëm ci Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko en tant que a corps wala en tant que sénégalais lambda rek boo amee benn message boo xam ne yaa ngi koy lancé. dina nekk dama yaakaar bi bi ñëw. ah oui ñii bëgg mu jeex yaa xam ne mu ñëw surtout bu Adji Sarr bi. Mhm. dama mu ñëw. parce que si laay gën a am xaalis quoi. comment. si laay gën a am xaalis. ci naka. <laughs> su ñëwee. ah si laa gën a am xaalis. ci naka. <laughs> Ousmane Sonko waaw <laughs> su ma su ma su procès boobu ñëw. Ah. dama ko yàqanti parce que si laay gën a am xaalis. mais procès bi ñëw sénégalais di gën a dee wala sénégalais di gën a torox nga ne sénégalais yow. sénégalais yi ah, mais ko mën a lijjanti. non pour lan. say doomi réew. say doomi réew. samay doomi réew. saa li ma daj si pour Sénégal ndax xam nga ko yëpp. non xamuñ ko moom vraiment. muy noonu. man j'ai servi l'armée sénégalaise kon man mu dem joxe sama bakkan kay saay ma bëgg dëkk bi man drapeau bi dama ko sàngoo si yaa ngi mais dama ne la mhm. procès bu Mame Mbaye Niang beeg euh, Ousmane Sonko ak procès Adji Sarr ak Ousmane Sonko man faaya je pense que j'ai le droit dama yàqamti procès bi ñëw ndax si laay am xaalis xam tax mhm. sale boulot bi foofu lay bëree sale boulot. Mhm. sale boulot képp def sale boulot. FS protection nga koy seqal. li tax ma dama yàqamti mu ñëw. Mhm. xaw ma nag ndax Sonko la. loolu c'est à vous de voir. Mhm. ngeen def analyse mais li ma wax defe naa. li ma wax defe naa leer na dama ne. procès Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko ak procès Adji Sarr Ousmane Sonko ñun waa FS protection dañoo yàqamti mu ñëw. pourquoi ñu yàqamti mu ñëw parce que si lañuy am xaalis. lu tax ñuy am xaalis mooy dafa am ñoo xam ne dañoo pare nii pour def sale boulot te ñooñu di pare pour def sale boulot ñun la ñuy fekk ci terrain bi ñu xool ñu ne ñoom ku gën a métti loolu la rek man moom moom moo leer na. si la ñuy gën a am xaaj saa veut dire que ponkal yi ñu ngi contact ñu ngi contacté faay wala ñu contacté chef blow you know loolu xel moo koy dégg. dégg ah, am xaalis. beneen bi mooy ñiy def sale boulot loolu nag c'est aux gens de voir soit ci camp bii la. wala soit si camp bii la mais ñun toute façon on est là pour tout le monde ñun tënkuñu ñu état teewuñu parce que dañoo yor agrément yor agrément ONU yor lépp parce que boo xoolee même suñ promo bi passé plein corona la te lépp luy rassemblement dañ ko interdit te gouverneur palais était là ci seen cérémonie de sortie moo nekkoon parrain bi te plein corona laa la wax de ñu ne rassemblement amul manifestation dara booy ñu ngi entraîné seen cérémonie de sortie c'était en plein corona mais pourquoi ban kayit la ñu yore bu tax ñu waral loolu il faut se poser la question nit da muus beneen bi ci topp mooy dëkk bi dinañ ko gars yi nañ ko yëngal nervi yi nañ ko yëngal nañ def affaire nañ def kii mélange cocktail mun a tof yi préparer ko ut ay kaba gën a defar seen biceps yi pour mun a xaañanteeg gendarme yi waaye saa yi di ngeen gis lu garaaw. mbégte la di la dalal si nga xam daanaka moo di ci jotaay bi. <laughs> maa leen gën a kontaan. kontaan bu wér sax. maa leen gën a kontaan maa leen di remercier bu baax a baax a baa a baax a baax di remercier bureau bi yëpp waa boîte bi yëpp et autres. waaw coach ah, coach ah, coach da ciy sànni coach da ciy sànni waaw ah, coach coach coach coach ak coach Momo coach coach rek mhm. elmo gaay gaay waaw day sànq bu defal tardé waaw gis nga gaay sànq dañu bëggoon lekk coach Momo nii la dëkk ak man fii ah mhm. physique bi moom saay saa yi du ma may dara ba pare di kalaate sama doom yi tamit yaa ngi non mm-hmm. parce que saa yi moom tamit mu ngi mu ngi ak Saalum et autres mu ngi defal gars yi ay boxe chinoise et tout te booy mooy directeur euh, directeur de stage bu FS protection moo nekk nii mooy chef Blow yaa ngi comprendre kii moom sama coach la sama rakk la sama xarit la waaw parce que nit ku baax la ko franchement daf may kalaate nice moo ma defaral état bi quoi pour gars yi xam naa dinañ ne faaya melu woon nii comment mais l'a mais laajal ma coach ndax mi ngi mi ngi entraîné gars yi ci wàllum xeex beeg yooyu noonu nerf yi yaa ngi leen entraîné ci nerf laajal ma coach loolu. <laughs> coach ñu bàyyi la nga nuyoog mbokki internet yi ñuy suivre rek euh, mu gaaw tuuti fi nga xam ne daanaka moo di ci Feeling Dakar wala Actubuzz. Mm-hmm. en fait euh, man maa ngi tudd Thierno Mbengue alias Blo. Mm. en fait maa ngi nekk si école u FS protection et comme ni ko sa waxee rek quoi. lépp luy wàllum xeex beex yooyu noonu yëpp mais juste que du xeex boo xamante ne da nga war a nekk ci mbedd yi di xeex ak yooyu noonu quoi parce que lépp lu ñuy jàng rek bon c'est pour un maîtrise de soi mais pas pour nekk di dóorante ci mbedd yi et tout quoi parce que c'est c'est la mentale qui travaille quoi mais pas doole bi nii rek wala dara quoi parce que punkal nii rek te t'as dans la tête amul sens quoi. Ah, bon c'est ça que je me moom nee na nit bi nit bi nit bi am na ko. waaw mais lu am la am la. waaw ah, mais comme ni ko saa waxee rek na gars yi jàngi jiwaat ko waaw nañ yow ngeen bi si terrain bi nan nan lay demee. bon <laughs> ah damay daw rek bàyyi leen. noonu lay daal demee yaakaar naa ni euh, comme ni nga daal defee. Ah, <laughs> waaw gars yi asalaamaaleykum maa leen di siyaar. di leen jox seen wàccuwaay di leen bëggee di nuyu waa site bi fi ñëw tey waaw Emma Jim kontaan nañ di leen dalal fii waaw macha allah liggéey bi jaar na yoon waaw en tant que coach dañuy nekk ci programme di suivre programme bi chaque jour di liggéey gaay fii nii ubbil nañ ñëpp pour bunt bi waaw képp ki nga xam ne ne pare na pour entraîner ñu fii ñu ngi salle bi mu ngi biir Grand Yoff waaw xam naa ne peut-être ku ne Yacine Thiandoum rek en face Yacine Thiam boo jegee tali bi rek di nga mën a am porte pour mën a ñëw accéder pour ñu entrer ci salle bi waaw ubbil nañ ko ñëpp képp ku nekk grave waaw ak ailleurs fenn foo munti nekk ubbi nañ la bunti pour nga ñëw entraîner waaw loolu laa moom jaajëf. merci coach. merci beaucoup merci. <laughs> yaa ngi gis waa